sëriñ Modou nag su ñëwee dafa teewaaleel sëriñ dafa teewal kilifa kër sëriñ Mo Abdoulahi muy sëriñ Modou Habib xalifam Cheikh Abdoulahi borom dër bi ak mbooleem njabootu Cheikh Abdoulahi gépp waaye nii nga ñëwee sëñ Modou ànd ak fédération daayira yi ak donga yi ànd ak sëriñ Abo sa doom sëriñ Mbàkke sa jarbaat ak mbooleem sëtti sëñ Abdoulahi yépp ak mbooleem taalibe jëwriñ yi day wane ne bis bii la sëriñ bi jox ndigal fonk nga ko kon ñu déglu sëriñ soo ko déglu sëriñ Modou nu ko sëñ Modou jafe rek ndax jotaay bi benn kilifa la am te mooy sëñ bi laa tafaloo shay'an bi xayri isni fal isnu sartun fi xabooli shaani genn ndigal la genn kilifa la am muy sëñ su nee waw na ñu ni waw na su nee doy na ñu tooy murit moom dafa yomb sëñ bi ñu ngi sàkku nga ñaanal sa doom Cheikh Abdoulaat léegi dama ne ko lu mu mel rek sëñ bii la moom liggéeyagul dara defagul dara sëñ bii moo liggéeyal sëñ tubaa ba sëñ tubaa faye ko Cheikh du mi muy def lii réussite lii ndax du sirru abihi moom mii lu ñin njàkk mooy njàkk moo dem Abidjan mu lëndëm mu fakk ko ba mu leer mu tabaxal fa Cheikh Mourtada tabax boo xam ne Cheikh Mourtada dani duñ ko mënee indi Dakar Touba def ko fa ñu def ko fa mur sadix la amit taalibe amuk taalibe ko gën ndax soo amee taalibe te amook taalibe taalibe jariñu waaye yow doo jariñ moom nag mur saadix ku gëm sëñ Tuubaa ñun dong yi joxaat nga ñu dars waltuf bi naa wa xawi wa kun lanaa waab lanaa usnan xitaama rabbanaa wa salliyan ala nabi wa sallimi waqdi bi haajata kulli muslimi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kum jamonoon la. sunu kilifa la sunu sëriñ la sunu wëlëre la sunu xarit la jataay bii moo fi sëriñ tubaa kon ci turam laay tàmbalee nuyu door caa teg nag xalifa général des mourides sëriñ Mountakha ndax moo ko fi teewal. teg ci sëriñ Sidi Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad sëriñ waaye nag maa ngi nuyoo ci turu sëñ Modou Kiimaan mi nga xam ne sëñ Modou Habib mii borom bis bi xalifab sëriñ Abdoulahi mbooloo mi fi teew yendu fi nekk fi démb ak barki démb yépp sëñ Tuubaa rek a tax ngir maam jaara kon soxna yu tedd yi maa ngi leen di jox seenum nuyoo teg ko ci loxol soxna gàmmu ak mbooleem njaboot gi ma àndal te ñuy njaboot ak maam jaara bis bi seen bis la ndax bis su jigéen ñi la waaye sëñ bi maa ngi lay seeral ni jigéen ñi jàmbaar lañ lool waaw dëgg yàlla waxuma sax tey lu jiitu tey waaye saa su ne ci yoon wi foo dem da ngay fekk ni jigéen ñi takk nañ taxaw yaakaar naa bu fekkee ni dem nga ci àll bi loo sori sori sori jigéen du la nuyoo mukk loxoy kese donte ñaari dërëm wala juróomi dërëm dana ko teg sa ne góor moom mën na la nuyoo loxoy kese dem faax su toog fële loolu nag damaa déggoon ni seen Tuubaa sëriñ Fallu bi muy liggéey jumaa ji dafa toogoon ci bunt këram saa yu xëyee foofu lay toog di xool nee na mu seen jigéen ñi ñu topp pool yi di yëkkati di joxe di joxe di joxe mu naa ah, jigéen ñi di sama jumaa ji ñoo ci man góor ñi waaye bu jumaa ji yeggee di lu góor ñi amati jox ko jigéen ñi waaye lu jigéen ñi am nag jox ko sëñ Tuubaa kon maa ngi leen di ndokkeel ci seen taxawaay ak seen jëf mënumaa tudd ñëpp waaye bu ma tuddee soxna gàmmu rek tudd naa ñëpp xanaa beral ci loxo ñi nga xam ne sax tudd woon na leen bis bi dañ teew fi ànd ak moom bis bi te yàgg ànd ak moom moom Fatim ci la bokk moom ak wala réem yëpp daal soxna moom bu sa dégg naa ko fi soxna Kine ciw na nga nële ak soxna si Kunta def na délégation bu bari soxna Asou Kunta moom moom mu ne su ko fay Abidjan ji kenn mënu ko fa te kenn jiituwu ko fa soxna Gamou Diop waa Masaalikul Jinaan yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm te leen xam ne li ngeen def seen bopp rek ngeen ko defal ndax ci ndigal sëñ Muntaxa lañ ko def te sëñ Muntaxa mooy jëwriñu Maam Jaara te li fi dajale lépp ci loxol sëñ Muntaxa la tegu di ñaan nag xanaa ngeen yàgg koo fekke te lépp lu ngeen ci def ren bu déwénee muy seen asaka waaw ñun daal suñuy kàddu mën naa gàtt ndax suñu kilifa lañ toogal bu fekkonte ni ñu ne ak yéen la taalibe moroom moroom lu luñ fi war a wax daañ ko woon a wax waaye nag jëf sëñ Ablaat nee na mooy yóbbaale wax te da ngeen a jëf waxu leen da ngeen a jëf soxna si du ku ñuy waxal ku ñuy jëfal la kon nag maa ngi sant ñëpp ci turu sëriñ bi di sunt déléga di sant délégation bi nga xam ne ñoo bàyyee ko ñëw fi te Cheikh Daba jiitu ko ak ministre bee mu représenté ministre ministre de communication mënuma leen a fay Côte d'Ivoire ak Sénégal benn réew la te ñun dañ ci am cër ngir sëñ Touba ngir Grand basam foo ko tuddee rek ñépp xam ni sëñ Touba tax nga di ko wax fu turu Grand Bassam yegg rek pour sëñ Touba ko fa yeggale ba Gabon sëñ Touba fu mu jaar moo gën fu mu jaarul. Guinée ngi nii bëggul di Mali Côte d'Ivoire nga ne euh, bëggul di Burkina Faso ba Congo ba ab Gabon fu sëñ Touba jaar rek moo gën a naat fu mu jaarul kon nag murid fu ngeen mën a nekk na leen seen xéewal fekk fa te lépp lu ngeen am la leen ci gënal jël leen ko jox sëñ Tuubaa sëñ Abdu Lahat dafa wax ne alal ci xol la nekk alal kenn ku ne am nga loo xam ne ci si biir xol doo toog 30 secondes du sa xel demu ci donte ca banque ba la ne wala mu ne sa poos bi nee na foo ko amatee jël ko jox sëñ Tuubaa fa loolee nekkoon sëñ Tuubaa koy wut da ngay dem ba du dutoo bëgg dara lu may sëñ Tuubaa te foofu la defaru murid nekk ci la sunu defar nekk tey ak ëllëg Cheikh Abdou maa ngi koy sant faaw ma sant ko Mbàkke ci sa tur ndax santuma ko ngir li ma ko jur waaye dama ko sant ngir li muy sa doom man damaa wax ne sama sëriñ la sama waajur la ndax Cheikh Ibra dafa waxoon ni liggéey bi sëñ Tuubaa de ku ci yónni sa doom bu ñëwee di sa baay yàgg naa ko wax ku fa yónni sa soxna bu ñëwee sax di sa jëkkër ku fa yónni sa taale bu ñëwee di sa sëriñ gannaaw nag taxawal lu mel nii ah wax dëgg yàlla sama baay la ndax sama baay lañ ko tuddee waaye def naa ko du sëriñ nag def ko roy teef ni ma sañ Muntaxa di wax naa damay roy ci yow maa ngi roy ci moom fi mu toll yàlla saw fan gudd yàlla nga dajee sa ngërëmal maam yaa képp koo àndal ci bis bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. léegi nag ñu déglu sëriñ Modou. ci sab liggéey la mën a taxawal lii nee na moom su ma nee liggéeyal sëñ ñaari minute sa ngërëm a tax. ci ngërëm la la Cheikh Mourtada gërëm ak Cheikh Abdoulaye ca la tabbi ca biir ba mën a def li muy def nee na da koy sagal di ko dimbali rek waaye defagul dara nee na lu man gannaaw yàlla nu mel gannaaw yàlla lu mu def gannaaw yàlla sa jëmm ji la kon ñu déglu Serigne Modou Kemal soxnaa sukkunta mi Cheikh Mourtada doon wax léegi démb la la jóge Makka umra moo tax ñëwul waaye màggalu Sëñ Abdoulaye gi ñu def Côte d'Ivoire maag mooma ci ànd waaye bi ñu defi basam itam maag soxna Astou Kounta ñoo ci ànd jóge gi mu jóge mag waaye dafay wax ni Cheikh doomi boppam am fu mu ko teg moo tax Cheikh Moutada soxna si ni woon loolu nan la ko jotal nga yëg ko ñun ñëpp nañu téye suñu noyyi nag déglu sëñ Modou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki julli di fi teew yëpp di nuyu mbokki taalibe yi ci turu sëriñ Mouhamadul Habib bi nga xam ne mooy xalifa bu Cheikh Abdoulahi borom dër bi moo ñu fi yebal wax ne bu doon sagoo moom ci boppam mooy ñëw teewal fii ndax fonk gum fonk bis bi ak cofeel goo xam ne ameel nañ ci sëriñ Mouhamadul Mourtala yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokkoon daara kër Cheikh Sane Mbacke te daara jooju la fa yóbboon way juram la Cheikh Abdoul Ahad ñun ñii kenn ku ne moo ñëw daa raxmaan jël si la fa yóbbu la kër Cheikh Sohaibou Mbacké bi ñu jàngee ba noppee itam ci moom lañ delluwaat mu delluwaat ñu daa raxmaan kon Cheikh Abdoul Ahad ñun cër bi ñu am ci moom mooy Cheikh Abdoul Ahad fa mu war na taxaw si ñun moom moo fa taxawoon taxawaay boobu kon nag bis bu mel nii bu amee muy bisub Cheikh Modou Mourtada ak Cheikh euh, Abdoul Ahad Male mu tombe ci Cheikh Abdoulahi ñu tudde ko ko te bis bi ñu ko ko tuddee bis bu am fàttali ko li Cheikh Abdoulahi kon daanaka man jër woon sax mu ci jël kàddu ndax Cheikh Modou Mourtada boo waxee rek mel na ni wax naa mel na ni Cheikh Modou Abi wax na mel na ni Cheikh mun Mountakha wax na mel na ni njabootu Cheikh Serigne Touba gépp wax na ndax matte na ko ci lépp waaye nag comme dañ ñoo yónni ki ñu yónni muy Seex Mamadul Habib nee ñu na ngeen ñu santal mbooloo mi santal ñu Seex Mamadul Murtada mii ak Seex Abdul ci doomu bis bi nga xamante ne bii ah tudd nañu ko Seex Abdullahi ñu xam ne euh, bis bu rëy ci ñun la bu sañoon tey jii njaboot Seex Abdullahi gépp ñoo fi teew kon nag Ah, soññ bi moom Cheikh Mamadou Mourtada def na ko ba noppi xanaa dañ cee mën woon ñàkk rek barkeelu ak jot kàddu ki ñu yónni waaye bu dee lépp luñ ci war na wax moom wax na ko bu dee taalibe gi nekk ñun ñëpp wane nañ ko ware na ko ndax lii woy juram ñun Cheikh Abdoul dañu daan ñëw ci moom bu ñu ñëwee nii lañ koy fekk mu toog ci suuf nga xam ne yow boo ñëwee sax doo xam fan nga war a toog ndax fa nga war na toog moom moo fay toog muy Cheikh Abdoulaye te boobu moom moo nekk Serigne kon nag ak taalibe yaakaar naa ñun buñ ko daan jàng daaw ñu weesu way jur yi Cheikh Abdoulaye kenn la ñëpp di njabootu Serigne kenn ku ne am na loo seq nag moom mu matan Serigne lool ñu koy ñaanal di ñaanal njabootam gi mu fi bàyyi di ñaanal mbokk taalibe yi fi teew yëpp. di leen xamal ne bis bi bis bu màgg la waaw ndax li ko tax a màgg mooy ñaar ñi ko seq ak ñoom ñaar lañ seqoon ndax boo nee Cheikh Abdoulahi ah Cheikh Abdoulahi moo toppoon si moom kon nag ñoom ñaar ah, kenn lañ woon te ñun ñu xam nañ ci lu wér a wér a ndax dañ koo dund ak ñoom kon nag sëriñ bi sëriñ moo daa bi nee na mi ngi lay sant bu baax njaboot Cheikh Abdoulahi gépp ñu ngi lay sant njaboot sëriñ Tuubaa gépp tam ñu ngi lay sant ndax sa taxawaay ba nga taxaw fële eh, ci réew mële Côte yaakaar naa ñii toog fii màndarga lañ ci loola man mii fekk naa la fa gis naa liggéey bu rafet ba nga fay liggéeyal sëriñ Tuubaa kon nag loolu njaboot sëriñ Tuubaa gépp amee lañ la ci eh, ak cant te ñëpp ngi lay sant bu baax di la ñaanal la nga fa naal ci liggéeyal sëriñ bi yàlla na la ko sëriñ Tuubaa mottalil ñi fi teew ñëpp itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm leen ñaanal yàlla itte ju fi nit am yàlla na ko Sëriñ Tuubaa saafara ci barke bis bu tedd bii nga xamante ni bi moo ñu fi dajale asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant mbooleem daayira soxna jaare yi nga xam ne ñoo fi nekk Sëriñ Mouhamadul Abib nee na mi ngi leen di sant ñun tam ñu ngi leen di sant bu baax ah di gis seen taxawaay baax ndax ci suba ba léegi jëf ji ngeen fi jëf yëpp ñëpp a ngi koy dégg di ko rafetlu kon yéen itam ñu ngi leen sant baax leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala léegi nag ñun ñëpp ñu maase ñu tàllal waaye sëriñ bi délégation bii nga gis kii toog mooy euh, le marabout alxaaji Cheikh daaba mu jugee Côte d'Ivoire ñëw ak délégation bi nga xam ne ñoo jugee ci ministre de la communication en Côte d'Ivoire. Euh, monsieur le Cheikh lui c'est Serigne Modou le fils de Cheikh Abdoulahi ibnu Khadim Rasoul.